wa ñi ngeeg euh, kenn ko xamne xamna aji sar bu baax euh, umpaañam la euh, ñu fas sekk ak mom waxtaan sa digganteeg aji ci walu mbokk lan la aji man yumpaañam la ndax nijaayam la doon sëyal ci jikir hmm. wa bu nekk ak mom jikir tamit ndax aji nekkoon na jifir aja avant muy ñew dakar hmm. bi mu ñëwee nekk ci fir boobu man maa ngi yor foofu restaurant mhm. bi ma fa yoree restaurant gisante ak nijaay mi bëggante moom mu ñëw nekk ci man avant boobu nijaayam takkaguma mhm. bi mu nekkee ci man daan ma jàppale ba mu yàgg mu ne liggéey bi dafa met mhm. fekk ci fan yooyu noonu jëloon na fa téléphone jàmbur boo xam ne ni iPhone la woon ba xale yu góori mool yooyu sax indi woon fa ay xeex foofu ay xeex yu metti Mhm. ñu jël ko rawale ko yóbbu ko benn dëkk bu ñuy wax yaayam ca gannaaw jifiir ci mhm. côté booy dem palma kii euh, Fimela laa ma nga ci côté yoonu campement Ndangan mhm. waaw léegi bi mu nekkee foofu ba mu yàgg mu jugee fa la day dem fii dakaar benn dëkk bu ñuy wax benn koñ bu ñuy wax Grand Yoff la wax na fa lay dem Grand Yoff benn tantam moo fa nekk yoroon fa restaurant moom tamit bi mu ñëwee yàggu fa dara mu daal ne day dem Pikine wuti foofu liggéey ci benn magu yaayam. Mhm. mu bàyyi foofu tantam bi ne Grand Yoff bi mu demee Pikine ci magu yaayam bi mu liggéey foofu tuuti ne am na liggéey mu woo sama jëkkër ne ko am na liggéey ci benn salon massage mhm. bi. bim ne am na liggéey ci salon massage ma jëkkër ne ko waa baax na yow de kenn dafa xamul loo bëgg ndax luñ la dégg tey bu subaa ñu dégg rek tamit def bëggoo liggéey mu ne ko fii moom dinaa fi liggéey ñu dem ay fan benn xaritam ne ma aji de. nee na instant bii dafa am buzz ndax day maase ku ñuy wax Ousmane Sonko mu ne ko kooku ci lan lay liggéey man sax waykat la mu ne ma kooku ci affaire ministre politique yi lay liggéey ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na yàlla ko ci yàlla jàppale ñu demaat demaat demaat ba ca kanam mu woote waat ci sama téléphone boobu nijaay mi rul téléphone bi mu wootee sama téléphone ma ne ko kooka la doomu jàmbur mu ne ma waa tante ma ne ko ça va ñu nuyeen te pare ndax sama téléphone bi bu ma la deful bu ma ko yokkul def ko may libre mm-hmm. du ma la dégg mooy téléphone yi doon jar cinq kii simple Italie mm-hmm. moo ne ko xaar ma jox la sa ma jox ma ko ma dem ca mbaar mi fi ma doon toggee noonu dafa am mbaar mm-hmm. boobu maa ngi togg añ ceebu keccax ma yëkkati nii sama bi ma ko wuyoo pare ma yëkkati ko jox ko nijaayam ñëw nag sëgg foofu di yekk ma dégg ci téléphone mu naan nijaayam man di nijaay dafa am liggéey buñ ma bëgg def loo nijaayam ne ko loolu ban liggéey la mu ne ko liggéey bi de dañ ne Ousmane Sonko bi may maase naa ko waxal dara nijaayam ne ko bu fekkee loolu la nañ la ci jox loo xam ne bu ëllëgee dina la mën a jëriñ ma sigi xool ko ne ko hmm? mu ne ko nañ la jox boo xam ne ni bu ëllëgee dinañ ci mën a jëriñu sax njaboot jëriñu ci ndax alalu euh, politique alalu baytimaan la. dégg nga maam Mhm. alalu baytimaan la loo ci laaj dañ la koy jox te luñ la jox nag alalu àdduna bi lépp lañ la jox mhm. mu daal di ne ko waa baax na ñu teg ci ay fan mu ne ko yow aji li mu koy waxal ku nekk nga wax aji songo aji songo te wax ji mi ngi bëgg a bëri kii lii muy def nii lan la mu ne ma sa yoon nekku ci man xam naa da ngaa mos a teg bët sama famille bi man ne ko man amoon may tegante bët ci sa famille parce que man sa famille man ne ko man soxna dong laaj kon omo leen lu ma ci lu ma ci dogalul mu ne sax da nga waxoon da nga bëgg a def commerce ma ne ko waaw ma ne ko est-ce que xam nga benn mbir mu ne ah ma ko coow li lu yemul fii man dina fexe ba dinaa dem wax ne yow aji lii ay fen la mun ne ma ah ma ne ko waaw ne am nga fi tam ma ne ko capable naa lu ëpp loolu mos naa la ba xaañ xeer mu ne ma ma ne ko bii paa dinaa dem ma wax ne lii du dëgg mi ne ma dinaa xam ndax am nga fit boobu ma na ko am na ko mi ne ma ndax sa commerce bi nga doon wax yaa ngi ci ma ne ko maa ne ma dinaa leen jox trois cent mille nga liggéey nga bàyyil ma ay waxi Adji Sarr bu ci wax ma ne ko dinaa ci wax bu dee moo tax nga jox ma trois cent mille denc leen seen trois cent wax ba sàggar xeeñ man dëkk mhm. li may wax nii xam naa ne suñ ko déggee sax dinañ xam ne man sama baat la ndax maa ko wax jaay mhm. ma xam na ma ay famille ma xam nañ ma mais li may wax nëbb ma ko laaxuma ko moom moo ko def man maa ko wax waaw. kon daal mbir mi yow jàpp nga leen la complot la bu leer. bu leer ni midi ndax nijaayam ci la bokk. Mhm. bu leer ni midi laa la wax nii foofu maa maa ko wax. Mhm. waaw. léegi nag boobu ba léegi nag yow amuloo ay menaces ak dara yuy dal sa kaw. kenn waxaguma dara waaw kay waaw euh, aji sar moom amu leen benn xibaar ci moom man de dégg ko ma benn xibaar ci moom hmm. est ce que nijaayam xam kan la ah nijaayam na mu dëgg yàlla moom ma joxe tuwaar bu hmm. ngeen ko gisee daal mi ngi jifir su ngeen ko bëggee gis tamit mi ngi jifir bu hmm. ngeen di gëy jifir moom ngeen xam lan la nijaayam boobu di liggéey nijaayam mboob day dem géej danaan maare ji day dem géej bi maare ji waaw. waaw yan ci kàddu nga bëgg a yokk ci mbir mi rek pour mu gën a leer. man daal li ma ci mën a wax mooy kan xale la mais xale bu yàgg luubal la moom aji lañ koy wax mais yéen aji saar ngeen xam yéen waa Ndakaar yi koy wax aji saar mais ñun aji raabi saar lañ xam. aji raabi saar lañ xam xale bu yàgg luubal la te daawut tee loxoom tamit teewuloon loxoom bi dara da daan yóbbu daal li ma ci gën a xam daal mooy kan ne gor booy lekk lekkal lu lew man daal loolu laa amoon comme lu ma koy wax waaw. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci leeral yi ñu indil jërëjëf. baax na jërëjëf.